David jaata ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di yow responsable politique nga parti PASTEF ca diwaanu Ziguinchor Euh, gis nañ ki nga xam ni moom moo di président bu yees bii di Bassirou jomaay Diakhar Faye dana prêter serment ñaari fan ci weeru avril fële nga xam ni moo di ca centre international Abdou Diouf bu 11h jotee lay doon daanaka fukki chef d'état ak juróom ak yenn ci ay chef de gouvernement war nañ leen xaarandi ci xew-xew bi ni mel waaye leneen li nga xam ni itam mën nañ ko wax président de la république recevoir na ci jeudi bii ki nga xam ni moom moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ki nga xam ni moom moo di leader Pastef Ousmane Sonko déjà ban commentaire ngay def ci wàll wi ni mel. waaw commentaire bi mooy euh, gis ne ci le cours normal des des choses yi dem nañu ci seen coobare daan nag ki nga xam ne moom mooy moom lañ jàpp ne moom euh, moo leen doy pour mu jiite Sénégal alors ci processus normal calendrier républicain war na prêter serment te buy prêter serment euh, dafay invité yeneen naataangoo chef euh, d'État donc bu ñu ñëwee loolu dafay bokk ci processus normal euh, li nga xam ne moom mooy noonu la état bi doxee mais li ci ëpp solo tey ñëpp d'accord nañ ne ne c'est la démocratie sénégalaise te bu ñuy delloo njukkal tamit peuple sénégalais la ñuy delloo njukkal donc ñun euh, que ça soit président Ousmane Sonko ba ou le, le chef de l'État le nouveau chef de l'État Bassirou Diomaye Faye jàpp nañ ne ñu ay serviteurs dong lañu serviteurs sénégalais donc euh, cérémonie bi effectivement ñun ñëpp ñu ngi koy préparé même ñun bu soobee yàlla. dinañ ah yéen yéen ngi koy préparé bu baax. ñu ngi koy préparé bu baax ñu ñëw bu soobee yàlla ci kàttan yàlla dinañ ko dinañu ñëw nekk ci wetam. Euh, participer ci moment historique yi nii donc euh, euh, ñu gis ne c'est c'est une démarche républicaine lu normal la donc amul benn euphorie buñ ci àndal dañ ciy dem de façon très calme et très sereine def ko ni ko république bi euh, laaje ak ni ko constitution bi laaje ñu defee ko noonu. Ousmane Sonko Macky Sall gisee nañ euh, ñi nga xam ni itam dañ ne ginnaaw problème yu bari yi nga xam ni itam amoon na seen diggante euh, photo bi muy wane ni rek li Sénégal ñëpp benn nañ waaye itam li nga xam ni itam moo di taxawaay Ousmane Sonko. waaw loolu wane na encore une fois la grandeur de l'homme wane na une fois la grandeur de l'homme wane na ci jëfam ne tamit. jëmmam moom moo am solo mais c'est la République du Sénégal c'est le Sénégal c'est l'État du Sénégal moo am solo loolu nag ma yaakaar ne ñëpp war nañ ci am jàngat muy Sénégalais yëpp parce que tey bu doonoon coobare euh, président Macky Sall kese euh, muy Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko kenn teg tànkam pale bay def passation service mais lii dafay wane ne rek mbirum yàlla la te ñu jiital yàlla ci luñ lépp lu ñuy ñuy def de l'activité mais image bi si doon image bu bu rafet wanewuñu benn rancœur wanewuñu benn mécontentement mais dañ ko def de façon très très républicain et que Sénégal dañu soxla euh, vraiment une euh, société euh, apaisée un climat apaisé pour que vraiment ñu mën a jublu ci liggéey bi. léegi looy tontu ci ñuy wax naan Ousmane Sonko ban place la war a occuper tey bu fekkee ni Bassirou Diomaye Diakhar fay moom mooy njiitu réew mi place Ousmane Sonko lu mu war a doon. waaw loolu ñàkk xam. les deux grands hommes là muy euh, Ousmane Sonko ak euh, Bassirou Diomaye alors ñi xalaat euh, yaa jàpp ne lënk-lënk na am si si diggante bi man de gëw ma ko gëw ma ko euh, fekk ñi toujours am état d'esprit bi ñu am nii avant ba moment yi ñu toll nii donc euh, man gëm naa ne. kon dualité euh, amul. non non non benn dualité amul te gëw ma ne dina am ëllëg nag buñ ko euh, ñu saaga ëllëg wala bu ñu prédire mais moo tax ma ne la tant que état d'esprit bi nga xam ne man moom laa leen xamee ñoom ñaar dualité mënul am seen diggante dualité mënul am seen diggante complémentarité rek mooy mooy am te ñoom ñaan ñëpp seen mbëbët benn la dañoo joxante ceeb joxante respect bu doy boo xam ne yàgg liggéey yàgg liggéey ay ay at donc aussi du pouvoir moo leen di séparer parce que ñoom ñaar ñëpp je sais que c'est pas ce ne sont pas des gens qui sont avides de pouvoir donc euh, loolu vraiment euh, bëgg na dalal euh, xelu ñi nga xam ne peut-être seen xel. seen njoot ñaaw na ci trop man mën naa dalal seen xel jàpp naa ne du du am. waaw naam du am waaye ñu ngi wàcc instant bi euh, prestation de serment la bu paree itam joxante lenge yi loolu itam ñu war a jublu ci euh, gouvernement bu njëkk euh, bu Bassirou yi Faye yéen tamit yéen a ngi koy wàcc seen coalition. oui loolu c' comme ni ma ko waxee rek c' est tout à fait normal ñu ngi koy ñu ngi koy waaj ñu ngi koy waaj en toute sérénité mais ñu ngi koy waaj aussi ak benn philosophie boo xam ne toujours moom lañu ñu yàgg a prôné du du partage du gâteau. ah ni ko Ousmane ko waxee. voilà du partage du gâteau comme ni ñu doon doxalee ba ba fii noonu lañ koy euh, doxalee. képp ku ñu jàpp ne à l'heure du moment mu moo war a nekk telle place pour servir dina fa nekk ñeneen ñi gunge ko pour mu mën a def euh, résultat et c'est ça le plus le plus important. waaye am ngeen ay alliés ci biir ah. oui c'est c'est ça mais c'est tous les Sénégalais. tous les sénégalais mën na am sax mu am ñoo xam ne moom laalewuñu dara ci politique. Hmm. mais peut-être seen compétence may na leen ñu mën a servir. Euh, mën nañ xaar ñooñu mais bien sûr c'est tous les sénégalais ça ne soyez pas surpris ne soyez pas surpris. ngeen am ay priorité moom sax fësal na ko ne dund gu cher gi bokk na itam li nga xam ni yitteem la ndaw ñi ak soxna yi ban yoon la war a mën a jaar tey pour atteindre objectif boobu. waaw yoon bi mu mun a jaar euh, mooy euh, juste euh, li nga xam ne tëral nañ ko ci programme bi projet bi parce que xam nañ ne tey féppay metti féppay metti mais laaj nañu saytu saytu faire l'état des lieux pour mën a xam ban côté la ñuy la ñuy la laal mais dans tous les cas benn aspect duñ ko duñ ko bàyyi parce que xam nañ ne fépp yi nekk muy dund muy institution yi voilà muy euh, économie bi et tout mais toujours est-il que aussi jaayuñu benn euh, illusion wala rêve bu ñuy jaay sénégalais yi dañoo ànd ak sénégalais yi ba teg comme suñu approche mooy le don de soi ku nekk loo am ci mën-mën ci kàttan de indi euh, mbooloo mooy doole même démarche la ñuy jël pour mën a dérouler li nga xam ne moom mooy euh, projet bi. David yow responsable politique nga Pastef ci diwaanu Ziguinchor mais mbirum guerre euh, bokk na itam ci défi yi nga xam ni bokk na ci li nga xam ne dina ko xaar dossier yi bari na. te yooyu yëpp euh, ñenn ñi sax dañu jàpp ni warul mun a sëgg ci dossier yooyu faaw rek ñu daal di koy càmbar. oui comme ni mu ko waxee amul euh, vengeance mais dina am justice parce que loolu je pense que c'est une demande euh, sociale et boo xam ne aussi ci priorité la la bokk suñu bëggee rupture bi nga xam ne moom lañu bëgg rupture boobu rupture boobu am donc la question question boobu c'est une question boo xam ne dañ ko war a jël à bras le corps donc euh, je pense que euh, ni ko waxee dina ko jëfee noonu ba sénégalais yëpp teg ci seen seen bët ba nga xam ne aussi vraiment euh, ce fléau fléau de de la corruption voilà même bu dañul à cent pour cent au niveau du Sénégal balaa nit ki ko def aussi dina dina xalaat xalaataat donc euh, ça c'est c'est des questions yoo xam ne des sujets yoo xam ne c'est intransigeant les gens sont intransigeants là-dessus donc ku xam ni ñuy ni ñuy doxalee boobu ba léegi nañ ne ces questions la c'est des questions yoo xam ne c'est intransigeant et on sera très rigoureux là-dessus. xanaa jeexalee benn question rek ak bato bi xëy na war rotation bi war na mën a gaaw de. oui bato bi. Ah, lu euh, xaar yàgg na ah. yàgg na yàgg naa ci yàgg naa ci plaider yàgg naa ci yàgg naa ci wax voilà tout ça c'est ça faisait partie des formes d'injustice yoo xam ne war nañ ko corriger le plus rapidement possible mm-hmm. voilà pour l'équilibre des en tout cas et la cohésion sociale cohésion sociale bi ñuy en tout cas woote pour mu mën a nekk parce que indi ay euh, conséquences yu metti euh, au niveau de la partie sud et je pense que léegi amatu raison ba euh, bateau bi euh, mënatul du daw donc il pas de raison pour que mu taxaw euh, fi toll nii war na mën a war na mën a continuer def navette bi Dakar Ziguinchor Ziguinchor Dakar. D'accord. David Diatta ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ni nga nangoo tontu suñuy laaj. merci beaucoup maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen remercier di remercier seen auditeurs yëpp voilà ak auditrices yëpp jërëjëf auditrices yëpp jërëjëf.